وكل ما زادت يحوى حمته يعني سلام يرجعي لمن جاء بالآيات لمن جاء بالآيات لمن جاء لمن جاء بالآيات رسول فخدموه فقالوا بالآيات من سنين فخدموه بزي الرسول فأسلموه كل ما يقول زمير آيات ناتي خير مسلم لكم رمت من أبنهم الأصابع استرخ وكان أهل تاريخ يا مرحبا يا إخوتي كل كزعما عامل بحيث كان نخو خرجوا من المطلقات بالله نعمل ويقوم بحميزة بالشغل خرجوا من المطلقات نقوم بحميزة بالشغل ونحن نخو نحن نخو يخرج من من دخول المنزل لم يراني من وعي المنزل خلق الله من تسلسل لست بعيدا من أسلم وخلقني خمسة شكرا متقبلا وخاطبه خير الخلق من خلف الخلق هذا انت بتخدم العلم يا رسول الله وبتبقى يا رسول الله يقول الحق خرج زواجنا اخلاها وخرفا غير زواج من قالوا من الخلف خرجوا من الخلف ما دي مجمع وحسن الله ما رأي فيه خرج الله خرج الله خرج الله خرج الله

Adore! Adore! Adore!

dafa defaroon baax Moussa Yaaka Moussa Yaaka Moussa Yaaka Moussa Yaaka Moussa Yaaka Moussa Yaaka téléphone bu yóbboo jaman xam nga ko bu ñëwee soo bu continué mu nekk ñu ngi fa daaw ba sant bu nekk daaw coono bu ma ci mën ba fi mu nekk daaw sama dem ba soog sama alim nekk yéen yéen amal ma wala kaa ne waalim soo fi nekk

God bless you. So, Look at person is listening. I said, that's it. That's the one. Think about it. What's our argument? No, the bad argument. You have to listen. So the world, we're still in a nation. We're not in one hole. We're not in a new. We're still in a situation. It's a thing. We're not in a way. You have to listen. You can listen to me. What's our argument? You can listen to me. What's our argument? What's our argument? What's our argument? What's our argument? What's our argument? What's our argument? What's our argument?

Thank you. Bismillah Rasulullah ta'ala kan Rasulullah Rasulullah kulli kulli nurud bi kulli zakhir وغيركم سواء من يسوق الرجال ويسوق بسام الدم ويخالي سام الخابش ويخلح ويصلي ويجهديه من عمله ويعمله ويساعدين بغيره أنا قبل الخلق ويعطي بالله ويعطي به ويرضى الله ودعي غريبا مسلما خالق له يقول أنا سأقول حالي الرسول رسول الناس من يبرك مجابك مصدق الناس من الدعاء من الناس يزيد من الله الستة رقم الستة هم ستون وسلام والمسلم والحمد لله والحمد لله رب العالمين والحمد لله والحمد لله رب العالمين وباخ وباخ بدل وباخ وباخ وباخ بدل وباخ يمسوس déglu tuuti rek. mbooloo mi mbooloo mi ñu ngi jégalu ñu ngi jégalu seen akasa naan bu ñu ñaan ngir yàlla jënd seen tubaab na ñëpp toog nee na ñu koy ñaan seen akasa seen akasa nee na mu ngi ñaan na ñëpp toog seen akasa nee na ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla jënd seen tubaab na ñëpp toog. sëñ Akassa nee na. li baax di ñaan ngir yàlla ak jëmmi Serigne Saliou Mbacké na ñëpp àgg suuf na ñëpp àgg suuf ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba na ñëpp àgg suuf yéen ñi fekk oto bi yéen a yéen a yor a coow li yéen ñi yéen a yor a coow li ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba ñu ngi leen koy ñaan Serigne Akassa lu baax lu weesu baax tànku Serigne Saliou. baax baax ba baax lu baax lu baax ba baax naa

lu baax ba dal baax lu baax du baax lu baax du baax ba dal baax waaye bàyyi seen saa yoo weesu baax ay sama sëriñ waaye moo weesu baax baax di yem fu xaju baax baax baax daay xaru bi sa baax waa ji ko soppal baax waa ji diw di duq baax waa ji mu gërëm di gënd baax waaye yaa ko baax na xaru sa baax amaana xaram ak yow Yo dul xar dugub dama ne gars yi ci koy def mu togg barke na ko suuf seen bàmm loolu gën na dugg def mu togg dana dul xar dugub yow sax nga yan loolu yow fu sax nga babaay naa daa ma xam ni garab bi nag du la jëm garab yi dawee di jëm mais nag mooy seen biir kër yi la ko dal aaxara bi ak biir sama dafa rëy maa ko sa xaaral xéwali mas naa aawaa naa dama mbaa lépp bi lu nekk sa ak sa xaaral ndaa di wax muy xala ngaan ñu man ah, daa def ko te man de xoolal borom te borom moo ci waxal bi suñ Tuuba sabana sabana laa sa Tuuba yi ñoo naay suñ Tuuba yaa fa waay ron maram parce que pare ko ki gaay ne doomi maam si na lamb bëgg a jàng nag Bamba yaa bari njariñ Cheikh Bamba yaa bari njariñ Cheikh Bamba yaa kenn dootu dox kam li nga dox kenn dootu wax kam li nga wax kenn dootu dox kenn li nga dox dan la war nga xam bi suñu Tuuba daal fu ñu wàllu si tax te xëy na bu juum bi daal te am xelam أصل أبقى محمد بن مصعب lay sa yàlla nga dal leen bërëx daraa bi lay sa ñu bu ñaay bu soxna daara yàlla na ñaay dafa ñëw ba ñëw ñëw xam nga ñu doon ñaar diggante na ak ñu ci da nga su rek fu ñu ya tax mu jël bu jëm tiraare fa ñu ko yaari ba dafa doon waale dafa sa tuwa na ko suñu gëna waaye loolu aw ah, ah, ah, ba wax wax ko la bi mo so

kuma ma digle begitu sini kerana Ramadhan Sultan bisa mahal itu jayaan itu di sini itu kau wah ya rumah sebenarnya terserah